أسير مع الأبرار هي أسير غزل إلهي هناك أسير mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xam ngeen ni euh, ñu ngi fii ci Touba nuyu mboolem koo xam ni yaa ngi xool seen site bu mag bi ñu ngi fii ci dëkk bu tedd bii di dëkku Cheikhil Khadim radiallahu anhu muy dëkk bi nga xam ni buuru yàlla bu liggéeyal borom bi subhanahu wa taala ba yàlla nangul ko ndax euh, la imam Shafii radiallahu anhu waxoon nee na borom xam-xam yi yi jëfandikoo seen xam-xam mu ni bu ñu nekkul wëllu yu yàlla amul wëllu yu waaw waawaaw in lam yakuni al ulamaau al amilina awliya allaahi mu ni fa laysa lillaahi waliyun nee na borom xam-xam yi jëfandikoo seen xam-xam bu ñu nekkul waliyu yàlla amul waliyu waaye nga xool Cheikh al Xadim radiallahu anhu nga xool fi mu jaar waaye itam waliyu bu nekk mission ak façon mission bila yàlla di joxe ndax minute bu jot seconde bu jot tierce bu jot yàlla ngay bind ci leerug rasulullah ay million yu dul jeex yàllaa ngay bind ci leeru Seydina Muhammad ay mbindeef yu dul jeex ay mondo yu dul jeex yàllaa ngay bind ci leerug rasulullah gi minute ba jot ay mbindeef yu dul jeex ndax da ngay xool baytul maamour moo tiim kaaba ga baytul maamour wax nañu ni waxtu wu jot une heure de temps bu teg soixante-dix malaaka dugg soixante-dix malaaka génn te malaaka bu génn dootoo dugg waaye nga xool kon mbindeefam borom bi subhanahu wa taala yaatu na waaye itam yàlla ci mbindeefam yooyu da ca am ñu mu ciy tànn ñoo xam ne ñoo koy liggéeyal waaw dañu ciy tànn ñoo xam ne ñooy àggale mission bi ndax Sidina Mohamed bi mu fi jógeeg léegi am na junni at ak ñin téeméeri at ak fanweeri at ak juróom juróom juróom ñaar waaye teewul mission baa ngay gën a yokk mission baa ngay gën a yaatu waaye bis bu nekk ak nag moome tey nag ki moome tey mooy borom jëmm ju tedd ji borom euh, liggéey bi nga xam ne liggéeyal na Sidina Mohamed ba ni ana xaadimu rasul moom Sëriñ Bamba nga xam ne lu ne wax na ko rasul waaye ndax dafa ñàkk jot ndax ku ni at mi douze mois la six mois yi ma julli ci rasulullah yi six mois yi ma tagg Sidina Mohamed kon kooku amul benn temps salaatu sitta bi matxi sitta kon mbokk yi ñu ngi ñaan sant gam ne na ngeen ma ñëw santale borom bi subhanahu wa taala ndax liggéey ba ko yàlla santoon mu def ko na ko yàlla bëggee moo tax yàlla joxal ko teraanga bi yal na yàlla yokk leeram tas ci barkeem ci darajey Sidina Muhammad hélas am nañ mbégte lool ak groupe Futurs Médias asiru mal abrari خيرا